waaw lu président lu ko neexee naan ba ba Kayz Ngok général a Ngok Kayz kayis man maa ngi bëgg découragé général dimbali ma man bu ma commencé liggéey Kayz Sof dama la ñaan dama la ñaan parce que yow yaa ma ëpp audience yow yaay général su ma commencé liggéey yàlla naa commencé liggéey parce que Kayz man maa ngi waaj a dof kayis dama la ko ñaan il faut nga sensibiliser Sénégal gën a sensibiliser Sénégalais yi mais Kayz Fof Sénégalais yi vraiment. pourquoi ñuy permettre Macky Sall mu naan day inauguré di continuer di fen Kayz dama bëgg nga insister ci fenu Macky Sall yi dama bëgg nga nga nga wax nga wax sénégalais yi vraiment ñun Kayz ñun duñu sacrifié pour ñooma ah. Kayz gars yi li ñu bëgg dafa yomb yow xam nga ne boo wàccee Sénégal aéroport paquetage la ñuy yóbbu ana brimel Kayz Fof gars yi li ñu bëgg dafa yomb ñun ñoo fi nekk di xeex di jël risque di saaga Macky Sall di wax na day naan day def lii day def laa mais xoolal activistes yi kay kay sof kay sof activistes yi xeexuñu ñoom Cheikh Assane Diouf poste la bëgg Cheikh Assane Diouf mooy numéro 3 fële Pikine kay soof loolu c'est normal Assane Diouf warul ñëw ànd ak Sonko mu ne day dem day dem euh, euh, euh, ci Gloria te ñëpp xam nañ ne Gloria Ablaye Wade buggul Sonko mister layem layemi kay sof xam nga kan mooy mister layem layem dàmbooj nekkowuñ fi dara di wër plateau yi di wax rek waa kayis kayis fichier bi kañ lañ ciy wax surtout nag loolu kayis foofu waaw kayis balaa may fàtt kayis foofu tey la suba la mercredi xaw ma da ngay def live tey wala kayis billaahi dimbali ñu nga wax ci Macky Sall dafa dara sàcc élection yi kayis te gisuma kenn ku yëngut mais kayis est-ce que seen normal fichier bi ba léegi xamuñu ci dara maatam juge yi nanguwuñu wax ndax dinañu bokk mais Kayz dañu ndara ba ñu sacc élection mais Kayz yow gëm nga Barthélemy moy euh euh euh maire Dakar gëm nga lool gëm nga Macky Sall dina euh, euh, nu mu euh, euh dom rak rakam Aliou Sall ay dara ko waay Kays, Fof gëm nga ah? non tay dama ñaan waxal ci loolu parce que tay tamit affaire góor jigen amna importance trop kay waye mak Sall mu ñu divertir kay sof billahi kay dama la koy watal kay sof billahi yow da nga am doole ya am ëpp doole fuuf dama la ko ñaan gis nga kérok Ibrahima Imam Dramé sax tuddu na la Imam Dramé pap Alé kay dama la ko ñaan élection yi def naa 23 jours mo ci dess xawma billahi kais, je te dis que Macky Sall ben objectif rek la am instant yi xam nga moy lan kay satch élection yi gis nga kay Macky Sall bu satch election yi pare nañu yàqu nañu mais dama gis yow askan bi semaine passée waxuñu ci sax ci élection yi waxuñu ci dara c'est vrai que Ousmane Sonko mu ngi wax ay dama la ko ñaan insister ci bu ñu nangu mu satch élection yi parce que comme niko ki waxé l'autre euh, euh, euh, son qui là chef de chef de cabinet comment il s'appelle son directeur de cabinet directeur de cabinet Macky Sall Mamour Sall Mamour Sall dafa jëful mu une élection yi moy lepp. élection yi bu Macky Sall gagné bu Macky Sall ñaké, soxlawul sax ñuy dem ci Macky Sall j'insiste vous avez temps muy moch, xam lu ñox accalmie bi gëmewu ko ni ñëpp ne salaw kenn waxul ci élection yi Macky Sall gëmewu ko le 23 janvier bu xasee sa ci élection yi ku génn dina la ray mais instant yi ñun duñu ñu xex obligé ko mu génne fichier tangal room aussi kay il faut sa message bi nga daan wax il faut mu continuer Macky Sall daf ñu wara a suñu réew ci 2022 bi bu sàccee élection yi wala mu ne day ray il faut que nous menacer mais bala may gars 2024 2024 2024 voilà merci Kaïs. merci euh, gars yi ku abonné ci dem abonné ci partager vidéo ñi ñoy patriote may Europe rek ah nek fa ah di wax lu tax Sénégal man de kayis sax moom li muy def man ñemewu ma ko kayis moo daan wax ay Macky Sall on va te prendre <laughs> mais kayis maa ngi doog comprendre lu tax ngay wax Macky Sall on va te prendre ba nga koy wax mais mais mais mais ñii ñii Sonko li mu wax dañ war a fusiller mais mais c'est c'est incroyable c'est incroyable kayis soof dama lay laaj yéen dama leen di laaj mista layem layemi ak kayis soof kan moo ëpp njëriñ billahi wallahi taala kay foofu mo ëpp euh, njëriñ damboj damboj am na njëriñ de mais sa vie n'est pas en danger comme la vie de kayu foofu billahi wallahi taala kay foofu il dérange Macky Sall ay militaire koy wo diko jox ay secret lu ne bu len fàttali mo waxon ci garde présidentielle Macky Sall Macky Sall ñëw garde président yu bëri Marème fay dafa dof yooyu yëpp mu ñu koy wax mais tay gis nañu mais ñi ñi wëru ñu dé mais kay a raison la folie là doit, doit, doit, euh, ça doit, comment dirais ça doit être un mal dans la famille des faits. Sall ñu faire. ay nit Mansour Fay, ko ne wérul yow kay gis nga Mansour Faye doon def karaté ak dekk fu mu toll dekk fu mu toll Mansour Fay di karaté fay di fecc euh, Amadou football gis nga kay ngi bi man loolu moom ma metti Mobutu Sese Seko sax li mu sàcc Macky Sall sàcc ko Mobutu Sese Seko c' était un empereur du Zaïre le Congo cinq mille cinq milliards de dollars lañ wax la sàcc loolu ay trois mille milliards la Aliou Sall Macky Sall salaamaaleykum maaleykum salaam kay sob Mobutu Sese Seko l' empereur du Zaïre xale yu bëri fii xamuñu sax la mooy Zaïre non ñii wéruñu billahi wallahi taalahi Mansour fay xamul li xew xam nga demba lan la doon wax neena terre bi ku fu dugg sol sa yere yu tilim do dugg si terre bi ah sen tenue salta salte ak sen pan borom maire yi nga xam ne yor sen pan panu jën kenn du dugg si terre yow xana bala ngay dugg si terre day fekk terre bi daw yow yow bu len ñu sanal terre bi dawul Macky Sall naan bo len dugg ci terre bi bu len bu len bu len bu len nu mu tuddati bu len jëkënte bu len jëkënte di dugg ci terrain bi eh kay soof billahi wallahi taalahi famille bii wéruñu kay ñun ñoo leen dofloo nag ñun ñoo leen dofloo kay soof yow xam nga milliards yi Macky Sall di gérer mais lolu képp kuy man mi sax amna mu doon démé aw Cissé c'est boma joxone ne jël réw réw réw lëmb mais lolu tam da ngay dof 8 ans après tu n'es pas la même personne képp ku yaakaar ne Wally Seck Youssou Ndour Macky Sall ñoom ak ñun ñoo yem yéen xamu leen lu ay milliards ku ko yàgg yor pendant des années munoo nekk nit Youssou Ndour du nit Youssou Ndour ku la ne nit la mook ñun ñoo yem yéen a ngi nax seen bopp yow yàlla jox la talent nga mën a way nit ñi di la jaamu nga am ay milliards pendant vingt ans kooku kooku mën na doon nit Wally Seck du nekk du nit dañ koy jaamu fu ne xamul li xew ci réew mi xamul lu ñàkk amul problème location Wally Seck amul problème location amul du xiif kii nee na doomu xaram yi vélo six millions lay dawal Mansour Faye waa gis nga mais yow yow <laughs> yow déggoo li Mamadou Lamine Diallo wax yow Mamadou Lamine Diallo li mu bind tey Sénégal Mansour Faye la sawaay bëgg mu remplacer ko loolu moo di ñaa moo ko njëkk wax moo di ñaa nee na bo gisé Macky Sall jël lu mat mille cent milliards mu jox ko Mansour Faye Mansour Faye la bëgg mu remplacer ko Mansour Faye bu démé ba def ci bopam ne mom war na mën a président Sénégal nga xamné ne kii wëru ñu xaaliss day yak nit ku dëkk ci ndóol juggé nduulu màjji dan xif dan mar sa papa sonu juggal nduulu màjji dem kawlak dem fofu Nous gardien xawma papa Sall gardien la xawma lu mu doon daf nga président Marème Fay..! palais de la république ay milliards avion 600 1000 milliards 100 milliards sax bu la nga mënul ba ñëpp di leen jaamu man wax psychologie la l'argent Coran..! le pouvoir corrompt Pape Alé Niang wax na ko Abdoulaye Wade nee li tax Macky Sall dof Xalé boko ko joxee milliard day dof Boko ko pouvoir ak milliard day katakeeni ba xawma lan faramata xawma lan faramata ba dang lay wax ni, il faut nga jang Freud il faut nga jàng psychanalyse te man yoy daf ma yag intéressé la psychologie des milliardaires c'est différent ñoom dañuy dem ba affaire franc-maçon sax da leen di dugg yow Saddam Hussein dana jaasi la daan doxantoo jaasi barke rasul lay Saddam Hussein jaasi la daan doxantoo benn jour nekk na ci pale bi yore jaasi bi di ko di dóor ci ngelaw li garde bi koy garde gardu rapproché dafa mujj reculer deux pas doomu Saddam Hussein Oudey dugg na hôtel dugg na hôtel fekk benn couple irakien def seen mariage ba pare war a célébrer seen première nuit Oudey gis xale bi robe de mariage mu ne indil leen ma xale bi gaay gi indil ko xale bi mu teud ak xale bi ñoom loolu la ñuy def dañuy drogué dañuy naan xamuñu fi ñu nek milliards yi da len di sappi ki nee na doomu Macky Sall acheté deux villas mais kayis nan la ñu war def ba ba gis ba am image yi ñoom nag dañoo muus gis nga seen kër yi ñi jënd mëno muusa ko waane ba ba foto ko ñoom seen kër yi ñu am Dubaï il faut que nous wane mais nous, nous, sommes de Sénégal Sonko barke barke sommes euh, euh, en tout cas Kayz man ne wax de man décrocher Kayz yow sommes que ne yow gars il faut qu'on protège Kayz il faut qu'on protège